من ظن غير الله يغني أو يضر mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bi di Touba ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wërngal képp abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba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 naka noonu kon gis ngeen ñu ñoo ngi fii ci waañ bi euh, euh, euh, nekk ka nga xam nag mooy jëwrinu liggéeyu waañ bi ñu koy wax Serigne baara Serigne baara gis nañu mbooloo mi nu mu commencé yegg si yow mi nga xam nag yaa yor waañ bi ñoo ngi la bëggoon a laaj rek nan nga taxawoo Euh, liggéey ja nga xam ne moo dem ci wàllu bernde yi mm-hmm. ba nga xam ne képp ku fi ñëw rek sëñ Baara mm-hmm. euh, li sëñ Touba euh, wax ci ay mbindam te ñëpp xamee ko ko mm-hmm. muy bernde jàng alxuraan jàng ay xasida te def salaatu ala bi loolu yëpp nag gis nañ ko ndax gis nañ léegi ni ñoo ngi doon matal la nga xam ne mooy njàngum alxuraan bi naka noonu nag lañ yegg si ci yow fas yéene ànd ak yow liggéey ja nga xam ne mooy liggéey waañ bi sëriñ Baara jërëjëf Seydina Aliou Dione bu ñoo ngi leen di nuyu di di leen dalal wax dëgg yàlla liggéey bi macha allah waañ gi moom macha allah euh, am nañ ci kii bu baax a baax wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar bu baax a baax mbooloo bi xele yi surtout xele yi tàmbali nañ di ñëw bu baax a baax ak kilifa yi waaye wax dëgg yàlla yaakaar nañ daal képp ku fi ñëw xeetu bernde façon bu ne daal kii nañ ko fi. Euh, lépp loo xam ne daal taalibe euh, mën nañ ko kii ba mu bégg daal it euh, faggu nañ ko ceeb bi wax dëgg yàlla macha allah togg nañ ko togg boo xam ne yëkk yi rek wax dëgg yàlla macha allah togg toggagum nañ ñeenti yëkk am na ay xarag ak ak béy yooyu noonu yëpp ñu ngi fi wax dëgg yàlla macha allah am nañ ci kii bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla. Mhm. rek ci yi. Mhm. ana ngeen ko taxawoo. waaw ganaar yi de wax dëgg yàlla macha allah ganaar yaa ngi fi tàmbali nañ leen di defar ganaar yi mooy dem ci kiiwu ngoon gi wàllu bernde ngoon yi mais nag yi moom moom lañ def añ wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi koy organiser bu baax a baax waaw surtout ganaar yi moom li dem ci xeetu salaat ak yooyu noonu moom mooy ànd ak ganaar yi mais am na liñ ci boolewaat ci ndawal gi façon bu ne daal ñetti façon euh, reer def nañ ko fi am na euh, euh, petit pois am na salade am na euh, macaroni am na yooyu yëpp ak xeetu vermicelle xeet yooyu yëpp dañ koo bëgg a togg pour mbooloo mi xale yi ñoom ñëpp ñu mën a bégg looloo tax ñu organiser ko noonu. Mhm. Euh, bëggoon nañ xam itam mbànd yi ñaata la ak nag yeeg yooyu xéwal yi maanaam daal euh, nan ngeen ko administré ci wàllu budget bi. nañ ko organisation bu bu mucc ayib wax dëgg yàlla fi ñu nekk nii toggagum nañ vingt mbànn ñaar fukki mbànn yoo xam ne def nañ ko ba lépp jaar yoon ak ñeenti ñeenti nag. waaw ak ak euh, ginaar yi war a dem ci reer bi waaye fi ñu nekk nii togagum na ñaar fukki mbànn loo xam ne moom moo war a dem ci ci añ bi buñ buñ xew buñ jullee tisbaar bi rek après ñu ñu xewlu ñun ñëpp wax dëgg yàlla macha allah mbànn yi yëpp ñor na ñaar fukki mbànn yi togg nañ ko ba mu kii ba lépp jaar yoon. waaw kon euh, noonu la ñuy ànd ak yow rek di laaj tam lu wal dem ci wàllu euh, maanaam hygiène. Mhm. xam nga comme jamono bi moom gis nga fu nu bàyyeekoo. Mhm. waaye njort nañu ni. loolu yëpp ab njàngale la moo xam ni mhm. saa yoo taxawatee ci lu dem ci wàllu bernde ak lu wàllu cuisine mhm. dafa mel ni dina am ay principe yoo xam ne di nga ko ci euh, jiital mhm. muy hygiène waaw hygiène boobu ngeen ko taxawoo hygiène gi wax dëgg yàlla macha allah taxaw nañ ci bu baax a baax surtout raxas mi ñii dañuy raxas ba mu set mais am na benn agent boo xam ne sax euh, ci waa hygiène la bokk Euh, euh, mais ñëw na di ñu jàppale ci liggéey bi xëj na daa nekkut fii di sol ay affaire u tenue waaye jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax moom moo insisté ci ñu jënd ay omo jënd ay madaar pour képp ku fi ñëw na nga raxasu ak ñu raxas mbane yi raxas lepp bom set wej pour pour affaire bi mën jaar yoon wax dëgg yàlla lepp dal ki nañ ko organiser nañ ko bom bom ki ma sha allah. wala kon Serigne Bara ñoom lay jaajëfee. di la fàttali euh, di len fatali yeen ñoom en direct fi manam ci Touba seen jaaraw. ak mhm. texte comme TV Keur Bamba. Mhm. lënkaloo ak digital euh, TV Keur Bamba ñu fasiyene lepp lu fi taatan ci ay xibaar rek dinañ ko di inshallah allah alaykum wa rahmatulah. soxna si ñu dendal euh, moy kan ak lan moy manam liggéeyam fi ci wañ bi soxna si assalamu Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum asalaamaaleykum taala wa barakaatu. ñu ngi leen di ziar di ñaan damay ñaanal sama sang bu tedd bi sëñ Modou Makhtar Mbacke di setup sëñ fallu mi ngi ci yoon yu ñew ñen na ko fi yalla yagal lool. di ñaanal suñu sang bu tedd ba su Touba ñen na ko fi yalla gëna wëral gëna wëral ci reem yagal ko fi bes bi nak mom dama sé tab ba mu jeex tak nak liko wara sama jëwri Sidi dañoo bokk dekk Liberté Mbour sa yu cant gi amee mu woo ma depuis maa moom démb la woo ñu nekk euh, côté Kayal du ndugg ndugg mi defe naa 21h lañu fi ñëw maa ngi moom ndax man mbiru sëñ Touba rek moo ma ñor mbiru sëñ Touba moo ma ñor lu ma waay woo lu ne du sëñ Touba moom doxuma si loolu waaw mbirum sëñ Touba moo ma ñor waaw mooy ci soxna si taxaw dina ko leeralal waaye nag dañuy ànd ak moom rek lu dem ci wàllu waañ bi soxna si gis nañu ni waañ bi Euh, daa mel ni mband yi xaw nañu sakkan lool. <laughs> waaye loolu ana nan ngeen koy taxawoo. mbana yi moom sakkan na macha allah ndax dañ ne mbiru sëñ Touba moom du tuuti moom mbiru sëñ Touba du tuuti ndax mbooloo maa ngi nii toog mba euh, mbana yi lépp foo xool fa sa bët yëpp lépp ay mbana la ñu ngi ko déparé si ginaar. ba si nag ba si gileem béy dara manqué wu fi macha allah lépp a ngi fi mbana yaa ngi ni lépp ceebu ceeb ak tu fek yap ak salat ak lepp ngi fi lepp seigne Touba ko waral lepp seigne Touba ko waral ñu ngi ni taxaw si waañ man nak ci affaire waañ kiwisin euh, la fété si kiwisin la fété ma ngi ma sha allah di len sant geu da ñaan sama jori Sidi mu yag fi lol te wér waaw euh, Serigne Sidi mu yag fi lol te moy kaddu yi ñu tatane ci soxna si nga xamne bok na ci jëwrinu waañ bi moom delluwaat na ci waxub Serigne Touba ndax bésub Serigne Touba bu ne bésub màggal la mhm. kon naka noonu la ñu xamal ni li tàmbali ci giléem ba ci ginaar maanaam li tàmbali ci ginaar ba ci giléem moom nee nañu lépp yéene la ci biir waaye wóor na ni moom ginaar maanaam ak xar ak maanaam ay nag yi demee noonu lépp am na kon lii tey moom ab bésub cant la joo xam ne wax dëgg fa yàlla tund bi yëpp maanaam ñoo ko sëq ànd di ko liggéey mhm. kon soxna si ñoo ngi lay sant di la gërëm kon ba léegi ñoo ngi wéyal liggéey bi euh, jóge nañ ci waañ bi waaye ñoo ngi fii ci café Touba ku ne xam na ni liggéeyal sëñ baa cant la foo ko waxee bendel yi bu noppee lu muy neex neex dafay laaj kafe kon café ji ñoo ngi ànd ak ka nga xam ne mooy sëñ Modou Faye sëñ Modou Faye lii nga xam ne mooy liggéey bi ana loo ñu ci mën a gën a leeral sëñ Modou bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar eh, di ziar suñu xalifa yàlla na ko yàlla gën a taxaw bu baax a baax doole ko wér ak wérle bu ma santee yàlla bu pare julli ci yonant bi sant borom Touba bu baax a baax ndax lii yëpp moom la ñun ay ndaw lañu rek dañuy jéem mënaguñu dara waaye dañuy ñaan suñu boroom yàlla nañu yàlla gën a taxaw bu baax a baax ndax première. édition mom lañu taxaw taxawal ni loolu yombul kon nag yalla ak Serigne Touba rek mo ci japp café gi nag ñu ngi ci jëm ci luñu mën ndax liggéeyal Serigne Touba yombul Serigne Touba mo lay wa waaye yow munoo koo liggéeyal ma ngi sant yalla bu baaxa a baax ndax Serigne Touba yombul ñun ay ndaw lañu depp demb bu légui ñu ngi yëngu ci café gi ñu ngi yëngu ci café gi buñu paré ci café gi ñu ngi dugaat ci leneen programme yi bari na fi Euh, foofu am na solo fi nga waxee nii yéen a ngi yëngu ci café bi waa café bi sëñ Modou euh, nan ngeen koy euh, seggee da ngeen yor ay machine wala nan ngeen koy liggéeyee ak ñaata xayma ngeen def ci café ji pour mën a maanaam teral gan yi mën leen berndeel ndax ñoo ngi gis ni gan yi suba ba léegi ñoo ngi gan di yegg si kon mu mel ni bés bi moom alaa daw me na kon bu alaa me sëñ Modou yow da ngay alaa daw me ci sa café mhm. loolu ana noo ko waajale café gi de yàlla def na démb ci guddi lañ ko saaf buñ ko saafee bu pare ci lañ ko dëpp ci ay kii ci lañ ko dëbb buñ ko dëbbee bu mokk ñi lañ sëñ Modou ñoo ngi dem waaye ñoo ngi dellu si nga waajal ñu nag la nga xam ne mooy mbootum café Touba ñoo ngi lay déglu ba ci kanam incha allah man zanna xayra mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bii di Touba ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wërngal képp abonne leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell